Euh, tey ñi ngi daje fii ci hôpital Heinrich Lucke di am euh, mbégte bu baax a baax a baax tey ñëw fii euh, indi fi li nga xamante ni ay jumtukaay yu am solo la jumtukaay yi nag mi ngi composé woo ak ay climatiseur yoo xamante ni climatiseur yu efficace la yoo xamante ni nii day seddal bu baax waaye day consommer tuuti ci énergie mu ànd ak ay lampes yoo xamante ni même chose day leeral lu bari di consommer tuuti énergie mu nekk loo xamante ni dina permettre hôpital bi ñu wàññi seen facture énergie mais aussi li ci ëpp solo ginnaaw bi ñu nga xamante ni loolu mooy suñu mission wàññi facture courant yi mais dina tax aussi malade yi nga xamante ni nii ak euh, personnel soignant bi véritablement ñu nekk ci condition yoo xamante ni nii tey ñëpp xam nañ ni fu mel ni Diourbel dafa tàng feebar rek doy na mais boo ci boolee en tout cas tàngaay bu metti dafay doy waar kon loolu dina régler problème économie d'énergie bi mais dina permettre aussi maladies am confort boo xamante nii véritablement dina tax personnel de santé bi mën a continuer seen liggéey waaw tey ñu ñëw fii Diourbel euh, ci lim indi nañ fi lu toll ci douze climatiseurs à haute performance énergétique yoo xamante ni ànd na ak une centaine de lamp LED yoo xamante ni nii tey dina permettre euh, ñu atteindre objectif yooyu mais phase pilote bi dafa concerner yeneen hôpitaux et que globalement en tout cas dina tourner autour de cent de francs CFA Mais dans la phase de généralisation, véritablement, ça permettrait de couvrir l'ensemble des euh, ni Yep, qui nekk ci Sénégal, ba ci l'hôpital ndaxte yaakaar naa ni maatam aussi am na tàngaay bu am solo bu fa nekk bu mel ni Diourbel kon du ñu fàtte fenn loolu nag mooy yéene wu président de la république Macky Sall moom daf ñu wax ñu jege population yi orienté suñuy acte pour que véritablement population bi yëpp gis ci seen bopp ñëpp xam nañ nag hôpital ku fa def defal nga ñëpp ndaxte kuy euh, nekk ci wér gi yaram suba xalaatal ñu mën ngaa ñëw hôpital kon lii bu ko defee defal nañ ko président de la république Macky Sall ci ndigalam mais defal nañ ko population sénégalaise yëpp. Euh, merci beaucoup effectivement c'est avec euh, beaucoup de plaisir que euh, je suis là aujourd'hui avec mes équipes, notamment l'antenne de Diourbel, mais aussi la direction technique de la l'AME au niveau du siège, l'ensemble de mes collaborateurs politiques aussi, pour euh, en tout cas procéder à la remise symbolique de matériel euh, et d'équipement énergétique aujourd'hui à l'hôpital Heinrich de Louquet. Mais ce lot de matériel consiste de climatiseurs, de splits, à haute performance énergétique, mais aussi de lampes LED, autant pour l'éclairage intérieur, mais que pour l'éclairage extérieur. Donc ce, ce, ceci rentre dans le cadre d'un programme qui s'appelle Rooftop Solar. Ce programme consiste véritablement à changer les équipements euh, qui sont au niveau de l'administration par des équipements efficaces dans le but de réaliser des économies d'énergie, naturellement parce que l'énergie est au cœur de tout, tout développement. Mais au-delà de ça, pourquoi nous avons ciblé les hôpitaux Parce que véritablement, le président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, nous demande d'orienter nos actions vers, en tout cas, les, la satisfaction des populations. Nous sommes conscients qu'au niveau des hôpitaux, il y, a des, il y a des malades. Je l'ai dit, être malade Si à cela s'ajoutent des problèmes de climatisation au niveau des salles de soins, ça devient véritablement, en tout cas à un certain niveau, insupportable. C'est pourquoi nous allons régler deux problèmes. Le problème efficacité énergétique, réduire la facture d'électricité des hôpitaux, mais véritablement travailler pour le confort des patients. Et je pense que cela rentre véritablement dans le cadre de la politique de, du président Macky est la phase pilote d'un important programme que nous allons déployer partout dans le Sénégal. Nous avons en tout cas choisi l'hôpital Heinrich Luquet dans la phase pilote, mais le déploiement sera en tout cas au niveau général. Au-delà des équipements efficaces, nous allons le faire avec euh, l'ANER qui va véritablement s'en charger d'installer une centrale solaire pour assurer en tout cas l'autonomisation de ces édifices, de telle sorte que les coupures d'électricité ne vont plus véritablement le bon fonctionnement des structures je le dis, ça me fait beaucoup de plaisir parce que c'est des souvenirs. Je suis né, grandi, en tout cas, j'ai été